abone leen ci seen youtube bi di yaatal xeltu yin te activé cloche de notification bi ngir lu wàccati bees ngir man di ko jot ca tàng-tàng ba audu billahi min alshaytani arrajim bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mbokk yi asalaamu aleykum wa taala wa barakaatu ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi balu ñépp xaq di bal ñépp di ñaan yàlla subhaanahu wa mu boole ñu baal daa mbégte di fas yéene waxtaane tem boo xam ne dina wara a yitteel ñu bëree bëri tem la boo xam ne àdduna bi soxla na ko penc bi soxla na ko wala penc mi muy société bi jëmm yi itam kenn ku ne soxla na ko muy individu yi individu yi kenn ku ne soxla na ko ndax mbir la moo xam ne day tax ba suñu dund gën a jag day tax ba suñu juboo gën a sax day tax ba diggante yi gën a neex lool gën a rattax kon day dox ci wàllu cohabitation pacifique di dox ci wàllu cohésion sociale waaye di dox ci wàllu euh, raffermissement des rapports sociaux wala des rapports amicaux muy luy tàppe xol yi di neexal diggante yi di saxal juboo gi lu ama am solo la muy lan al islaaxu bayna naas muy defar diggante yu yàqu yi defar diggante yu yàqu yi waaw mel na ne lu ama am solo la lu ama am solo la ndax boo xoolee euh, diggante réewagréew sax bokk na ci li tax seen jëflante mën a sax mën a rafet ñu am ay relation diplomatique yu dëgëra a dëgër di yónnente ay amba ambassadeur loolu jar a bàyyi xel la moo tax léeg-léeg sax ñuy tàgg nit ci baat bi muy lu am solo muy diw de jikkoy pusa yor day ñaw diggante day ñaw diggante yi rek wala ñu ne diw de du seetaan luy yàqu mukk waaw kon defar diggante lu ama am solo la mbokk yi nañ ko xool rekk ci wàllu tabax moo xam kër gi nga dëkke la wala société bi nga tabax wala entreprise tabax mu mat rek nga peinture doyut waaye de sóoraale ne tabax léeg-léeg mu fett wala mu bënn wala mu xar wala peinture ba xoosu wala muy bëgg a ràpp su boobaa faaw nga raaxaat ko raxaat xarxar xar yi daldi tayaat bën-bën yeeg trou yeeg pax yi yeesalaat peinture yi kon tabax noonu mu soxlaa yeesal noonu mu soxlaa entretien soxla réhabilitation diggante yi itam ndeke dana dem ba mel ne lu xar wala mu bënn wala peinture ba xoosu ñu war koo raaxaat wala tayaat ko wala bu doon ab yére la sax mu xottee ko ñu war koo ñëwaat mbokk yi defar diggante lu am solo la waaye dafa tumuranke nag ci suñ jamono ji ndax suñ jamono tey ji moom nit ñi bëree bëree bëri na yàlla baal waxuma la sax fekk diggante bu yàqu ñu koy jéem a defar waaye dañuy fekk diggante boo xam ne dafa neex àllub neen ñu wax walla ñu jëf walla ñu dox ci lu koy yàq mbokk yi loola lu doy waar la kon mbokk yi bokk na ci jikko yi nga xam ne tabaarakallaahu jikko yu ama am solo la jikko la yoo xam ne mooy tax ba soppante am xol yi tàppoo kenn ku ne mbokkoo sa moroom jikko la ne itam euh, xeet wi yépp a ko soxla société bi yépp soxla nañ ko ndax jikko la joo xam ne su amee rek diggante yi relation yi day daal di dëgër këcc këcc këcc waaw te relation yi nag su dëgëree rek ah xeetu islaam day nekk xeet wu kawe xeet woo xam ne euh, xeet wu ñuy respecté lay doon xeet wu ñuy waggar lañuy doon kenn du leen yab waaw jikko la joo xam ne su amee rek noflaay day am noflaay day am ci xeet wi am ci société bi ak dal am quiétude am paix am kal mu am stabilité am fitna yi itam daal di wane ginnaaw fitna yi jeex tàkk këreel yi muy xëccoo yi ak conflit yi jeex tàkk mbokk yi jikko jooju mooy lan mooy xuluqul islaaxi bayna naas mooy jikkoy puso di ñaw diggante yi defar diggante yi yéwénal diggante yi mbokk yi diggante muy asulxu lu ama am solo la ndax doon na mbir moo xam ne su amee rek su amee ñu takku ci société bi ñoo xam ne seen slogan mooy du ñu seetaan lu ñaaw du ñu seetaan lu nara uh, du ñu seetaan euh, diggante yi yàqu du ñu seetaan lu nara defaru muy yàqu su fekkee am na kuréel bu takku def loolu seen slogan rek defe naa ne xëccoo yi xuloo yi dana wàññeeku lool bu jeexul mbokk yi diggante yi defar ko lu am solo la yéwénal lu am solo la yéwénal nag dana am ci ñaari anam dana am ci diggante ñaari nit yoo xam ne seen diggante dafa nar a yàqu nga defar seen diggante mën naa am ci diggante sax ñaari kuréel ñaari groupe groupe de personnes yu seen diggante nar a yàqu nga defar seen diggante bu mu ci mën doon nag islaam soññi na ci ndax bu dee diggante ñaari nit yàlla moo ne innamal muminuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum fa aslihu bayna axawaykum nee jullit ñi kat ay mbokk lañ jullit ñi dong ñooy ay mbokk kon saa yuñ demee ba seen diggante nar a yàqu ñaari jullit nar a xuloo nee na bàyyi seen yitte dox ci wax ci jëf ci ba juboo amaat ba diggante bi dafa rowaat melaat na meloon ne cocc loolu lu jar a bàyyi xel la waaye ñaar ñuy xuloo rek ngeen topp ca rek di gën a xam safara wi di gën a upp bu mu la gën a am fayda de bu mu la gën a am fulla de jamono ji daal ku la yëg yëg ko ku la yëgul rek nee ko fa ñukk ko defee kenn ku nekk ne fa ñukk moroomam te ñu mënoon a jariñante waaye ngeen topp waxi yàqkat yi ba jariñantewu leen loolu yi moom lu ëpp def la mbokk yi su dee diggante ay kuréel itam muy groupe de personnes association wala mbootaay wala daayira wala yu mel noonu diggante yee bu naree yàqu nañu dox ci defar ko alquran soññi na ci mooy lam ne wa in taifataani min almuminina qatatalu fa aslixu baynahuma loolu yàlla wax na ko waaw fa in baxat ixdaahuma ala al fa qaatilu allati tabgi xata tafiia ila amrillah fa in faat fa aslixuu baynahuma bil adli wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin kon ñaari kuréel ci jullit yi suñu suñu demee ba réeroo ba nara a jëlante ay ngànnaay fas yéene jàmmaarloo di xeex bu leen seetaan mukk ngànnaay ya di dal waaye na ngeen ca dox tànki jàmm ba ñu wiiraat ngànnaay ya ba ñu nangoo toogaat waxtaanaat ba noo amaat seen diggante ñaata yoon ngay gis association bu amoon doole doon réaliser ay projet yu am doole ñu xëy xëy rek daal di tas nekk ay clan yu bëree bëri ay pàcc-pàcc kii di deme fee kee di deme fee seen mbooloo gën a néew ñu gën a néew doole wala daayira bu amoon doole di tabax ay hôpitaux di tabax ay école di tabax ay daara di tabax ay entreprise nit ñay liggéey ñu xëy xëy rek ñu ne ah diw da leen di kaañoo rek diw da leen di exploité diw daal day lekk xaalisu daayira bi rek am ñu ne waaw comme diw maanduwul ñun nañ tasaat bu ngeen tasee kii di bay fee kee di bay fee kaneen di bay fee doon ñaari kuréel wala ñett wala genn kuréel fukki kuréel daal di cay juddoowaat doole ji day néew lool bu ko nag lu mel noonu bala moo am su ngeen gisee mbooloo mu ànd te ànd gay njariñ saa yu leen tàqalikoo dee yoon rek bala mu leen ni kirtim di jàpp ah ñi nga xam ne bu ñu waxee ñu dégg leen ñi nga xam ne nit ñi warmaan nañ leen nañ teel a jóg dox ci wax ci dox ci tànki jàmm wax ci kàdduy jàmm jëf ci jëfi juboole ba juboo mën a amaat mbokk yi yonent bi sallallahu na lool defar ay diggante daan na wax naan as-sulhu jaa'izun bayna al-muslimin illa sulhan ahalla haraman aw harrama halaala nee na diggante jullit yi daal saa yu gisee diggante bu nar a yàqu moo xam ñaari nit la jullit ak moroom ja ñu dem ba nara a réeroo nar a xeex nara a dogoo bala ñuy egg ci xuloo wala xeex wala dogoo rek na ngeen daal di gaaw jouer rôle sapeur pompier fay safara sa wax leen lu tax seen xel dellu siwaat ñu juboowaat àndaat xamal ko ne ko diw dey bu la waxee nangam lu la naqari da koo rëcc rek bu la defee nangam lii mu naqari la da koo rëcc rek waaye moom day ku la bëgg la te yéen ñi seen ànd bi njariñ dong lay jur soytaane moo leen bëgg a yàqal dong bu leen nangu loolu ay at a ngi nii ngeen di ànd kon su ngeen xëyee dogo ku ne di romb sa moroom bañ koo nuyu kenn du nangoo waxati ci moroomam lu baax su boobaa kat seeni noon dinañ leen ree yu mel noonu ngeen wax ba ba ñu juboowaat yonent bi sallallahu alayhi wasallam yemul rek ki soññ ñu ci di juboole waaye da ko jëfe ba tàyyi ay diggante nar naa yàqu ba tàyyi wala diggante yàqu yonent bi sol yéreem sol dàllam doxi jéego seeti ñaar ñi nga xam ne ñoom la seen diggante nar a yàqu bu dee nit ak nit la kenn nit la ñaari nit kenn ku ne mu wax ak yow ba sa xel dellu siwaat mu ne leen joxante leen loxo ñu juboowaat bu dee ñaari kuréel la dëkk dëkk wala mbootaay ak mbootaay mu daal di woo ñaari mbootaay yépp wax ak ñoom ba seen xel dellu siwaat ñu joxante loxo daal di wéyalaat seenub ànd moo tax yonent bi sallallahu alayhi euh, ba mu yëgee ne banu amru ak banu awfu kat seen diggante mi ngi commencé ñagas seetaanul musiba ba di tàkk seetaanul seetaanu leen ñuy dem bay dogoo wala ñuy xeex wala ñuy jëlante ngànnaay moom daal ba mu yëgee ne bani amru ak banu awfu wala banu amru ak banu awfu seen diggante mu ngi jëm ci yàqu seen diggante mi ngi bëgg ñagas dafa daal di sol dàllam doxa ba dem ca waa banu amru ak waa banu awfu kenn ku ne mu xamal la ne la ànd ak sa moroom kat mooy sa njiglaay mooy sa ndam mooy sa doole ba ànd ba weyaat ba diggante ba rafetaat loola kon signal bu foor la boo xam ne yonent bi sallallahu joxe na ko kon waar nañu ci wax wax yu ñuy encouragé ci di juboole nit ñi waaye waar nañu ci jëf itam ndax juboole na kon ne euh, dañoo bëgg jàngal ne juboole kat dee leen ko defee nii ma koy defee kon juboole itam euh, yàlla bëgg gum ko bëgg tax na mu digge ci neexal bu ama am doole neexal bu am doole waaw léeg-léeg da ngeen koy gis société yi euh, da ngay gis euh, ku leen jaayal lu bëree bëri société buy liggéey lii wala laa du ma tudd benn société ci commerçant yi grossiste yi moo xam commerçant yu mag yi wala yu ma yu yamamaa yi muy euh, ñuy jaay en gros wala demi gros en tout cas daal société yu mag yi daal commerçant yi ñu jëflanteel ñu nekk seeni représentant di leen jaayal seeni produit euh, léeg-léeg ñu leen di motiver ci ay neexal waaw ci ay remise ci ay remise yu ñu leen di jox ndax boo leen jaayalee quantité bu bëree bëree ki ci seen produit léeg-léeg mu doon ci temps bu gàtt dugal ci seen chiffre d'affaires lu am doole dañ lay neexal léeg-léeg nga gis ñu ne commerçant diw dey société sàngam ñoo ko jox camion bii société sàngam de ñoo ko pentiiral boutique am bii wala ñoo ko jox nangami million ndax da a jaayal nangam lu jar a bàyyi xel la moo tax yàlla itam bëgg gum bëgg ñuy dox ci wàllum jiboole dig nañu ci itam tuyaaba ju mooy lam waxoon ne laa xayra fi kathirin min najwaahum illa man amara bi sadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas wa man yafcal dalika ibtigaa mardaati illah fa sawfa nutiihi ajran cazima ajran cazima neexal baa ngoog yonent bi làmmiñ yi kàddu yi ngeen ciy génne budul ñett yi daanaka rek jaru ko daanaka yiw nekku ca daanaka yokkute nekku ca de seen làmmiñ yi kàddu yi ngeen cay génne bu jëmul ci ñett yi de daanaka rek noppi noppi da koy gën yiw nekku ci ñu ne ko ban ban la mu ne bi njëkk bi mooy euh, bu ngeen bëggee di wax lu jur aw yiw dee leen ñaax borom alal yi ñuy saraxe dee leen ñaax ñi loxo ñi seen loxo jot seen ginnaaw ñuy dimbale ñi seen loxo jotul seen seen ginnaaw muy benn di soññ nit ñi ci tuyaaba ji nekk ci saraxe ak dimbale ba ñi am di sarax ak di dimbale ñi ñi amul beneen bi mooy di wax ak yiw ak njekk maanaam loo xam ne yàlla digée na ci tuyaaba yàlla digée na ci neexal te nit ñi sàggane ko ngeen leen ci yee ba ñu xam ne lii kat lu am tuyaaba la lu am yiw la ñuy góor góorlu di dabu tiyaaba jooju ak yiwwa muy ñaar ñetteelu kàddu gi ci kàddu yi nga xam ne yu am solo la mooy su ngeen fekkee diggante bu nar a yàqu wala ñaari ñu xuloo wala ñu meroo wala ñu dogoo ngeen dem ci ñaari jëmm yi su fekkee ñaari jëmm xuloo wala ñu meroo wala ñu dogoo wala ñaari kuréel yi su fekkee ñaari kuréel la meroo wala ñu dogoo wala ñu xuloo kenn ku ne nga wax ko lu rafet ci moroomam bu ko defee ñu juboowaat yàlla nee na ñetti ñetti kàddu yi moom su fekkee seeni wax daa jëm ci benn ci ñetti yi wala ñetti yi moo tax ngeen di wax su boobaa moom waxuma ne wax aay na waaye wax lu am tuyaaba la ndax ku ko def yàlla dig na ko ak pay dig na ko tuyaaba ndax dane fa sawfa nutiihi ajran azima ku def benn ci yi dinaa ko fay pay gu duuna duuna duuna duun waaw defe xale boo ko demal ca boutique ba nga jëndal ma ceeb dinaa la neexal neexal bu duun waxuma la dem waaye mën naa am sax ay xel lay deme ay xel lay deme mbokk yi kon defar diggante sax sarax la kon ndekete ni ngay yëkkatee sab junni jox ko nit wala kilo sook suukar wala kafe wala tàndarma jox ko nit ne ko dama la ko sarax am yàlla jox la nga am jot ci tuyaabay saraxe ndeke ñaar ñu nar a meroo nga dem toog ak kenn ko ne ci ñoom ñaar wax ko lu baax ca moroom ja wax ko seen diggante bi euh, ni mu neexe woon ni mu amee woon solo seen ànd bu rafet bi ni mu neexe woon nit ñu baax ñi bu ñu dogoo itam gàcce gi ci nekk bu ñu àndaatee ndam li ci nekk ba tax ñu àndaat loolu yi day tuyaabay sarax ngi ci ndax yonent bi salaam nee na taadilu bayna al nee na soo soo fekkee ñaar ñu nar xuloo nga wax a wax bañ juboo wax jooju nga wax wala kàddu googu nga wax ba tax ñu juboowaat yàlla dina la ci fay tuyaabay ku saraxe dina la ci fay tuyaabay ku saraxe loolu moom lu wér la ndax daa ko fekk ci saxiixul buxaari ak muslim yonent bi sallallaahu alayhi wa li islaam di bañ bañ ku wax la ca ginnaaw dëgg ku mentir ku wax ay mensonge muy la ca ginnaaw dëgg wala lu dul dëgg am na fu mu ko daganale muy lan su fekkee dangaa gis ñaar ñu nar a xuloo wala ñu meroo wala xuloo nañ ba pare wala meroo nañ ba pare nga bëgg ñu juboowaat bu jaree sax nga wax lu rafet loo xam ne yaay rafetal rek waaye lii amut waaye xëy na soo ko waxee mën naa tax ba kenn ku ne a xelam demaat ca moroom ja ñu àndaat nga wax ko bañ àndaat loola dara nekku ci kenn du la ci bindal tuyaabay ku wax la ca ginnaaw la ca ginnaaw dëgg moo tax yonent bi salaam nee na laysa alkadaabu alladi yuslixu bayna annaas fa yunammi xayran aw yaquul xayra aw yaquulu xayra waaw nee na soo su fekkee daal danga gis ñaar ñu nara xuloo wala ñu nar a meroo wala xuloo nañ ba pare wala meroo nañ ba pare nga bëgg ñu àndaat nga dem wax loo xam ne leer na la ne lii du dëgg waaye nag kàddu yu rafet la rek kenn ku ne nga wéet ak moom wax ko lu rafet rafet ci moroomam yow day diw moo ma yónnee ci yow nee na moom daa xamul lu xew ndax danga ko daan nuyu te nuyootoo ko danga daan ñëw ci këram gi te ñëwatoo fa te ñëw gim doo gi nga doon ñëw ci këram kat lu ko neex la ak yokkute la bu sañoon kat nga koy nuyu na nga ko daan nuyoo bu sañoon kat ngay ñëw ci këram na nga fa daan ñëwee ndax moom kat nee na jàppalu la dara ku la fonk la boo ko waxee kenn ki dem ca kajates nga waxaat ko lu ni mel fekk sax du dëgg de waaye dana tax ba ñu ñaar buñ dajee ñu nuyoo saafoonte àndaat ànd bu rafet kenn du la ci bindal tuyaab kenn du la ci bindal boog bàkkaaru ku wax lu dul dëgg mbokk yi moo tax suñu société bi yërëm talu na société bu jara yërëm bu jara ndëppal la sëriñ Cheikh Tidiane si almaxtuum daan wax wala almaktuum nañu sang réew mi te sange ko ak waxtaan ak diisoo réew ñu koy sang faaw ñu wut ko ñu wut fuñ ko toogal nañ ko toogal ci légitimité waxam yoo am solo yooyu waaye société bu yërëmtalu lañu nekk waaw li ñuy dund tey ci dogoo gi ci meroo yi ci xuloo yi ci noonoo ci bañante ci sax ñu waroon a ànd ba noppi kenn sawaratul ci moroomam ñu mel ne safara ak caas ñu mel ne dawkat ba muy le chien xaj ak muus doy na waar day am sax foo ko séentoowul da gis ñaar ñu bokk génn kër mel ne xaj ak muus fu ñu toll xëccoo fu ñu toll xuloo fuñ ko foogewul rekk léeg-léeg dana am ci diggante baay ak doom walla yaay ak doom diw ak baayam de ay at a ngi nii duñ tuddante diw ak yaayam ay at a ngi nii duñ tuddante diw ak diw de ñoo bokk ndey baay waaye ay at a ngi nii ay weer a ngi nii ñu xuloo waaw diw de yaayam rek lay bañ a gis diw yaayam rek lay bañ a gis yooyu yëpp dañ koy gis am ci exemple yu leer nàññ man gis naa ko mere yaayam ba naan ngeen baal ma ci baar bi de da koo mere donte kàddu ga jagul waaye dañ leen di waxal li am ci société bi rek mere yaayam ba àgg ci naan kii de bu deewee bu faatoo directement safara bu duggee àjjana dina ma jaaxal nga gis ñaar ñoo xam ne seen diggante lu rattaxoon la wala ñu jege tasa ci mbedd kii xool gauche kee xool droite ngir rek kenn ku nekk ngay won moroomam ne ko faalewuma la li ñenn ñuy wax ne ah diw dey damay jéem a aju di waaye wan naa ko ne ko maa la ëpp man waaw dañuy daje ci mbedd mi de mu jóge penku ma jóge soow ma di ko xool di ko xool ba mu yaakaar ne dama koy nuyu ma may ko bii may ko bii mooy lan ma geestu ma xool gauche wala léeg ñu ne ma xool géej wan ko ne ko ëppoo ma fulla comme yow yaa ma mën a suur rek rawatina man ndax koo joxul lekk joxoo ko naan moom defe naa ne boo ko meree du ko saf mbokk yi jariñante gi du jox lekk du jox naan nit ki sax man nga koy jox lekk di ko jox naan fekk wallaahi yéene woo ko ko de yéene woo ko ko sax wala nga koy jox lekk di ko jox naan fekk toroxal ko rek nga ci jublu la nga cay jublu mooy man rek lay bañ de waaye fi nii bu lekkee man la bu naanee man la bu tëddee fu sedd man la bu amee yëre yu sedd man la wala nangam nangam mbokk yi jariñante gi de mooy bëggante te yàlla tax mbokk yi ah defe naa ne nit mën na laa bañ a jox lekk bañ laa jox naan tamit lay jariñ ndax ka ngay taseel ca jàkka ja wala jumaa ja ngeen di julli jullig mbooloo te yonent bi sallallahu wax julli mbooloo ni mu ëppee tuyaaba julli gi nga julli yow kenn waaw su fekkoon jàkka ja ma sàmba ñëwul ma demba ñëwul paate ñëwul kenn ku ne ñëw ba mu doon mbooloo tuyaaba jooju ndax dina am dañuy wax ne julli gi nga julli ci jàkka wala jumaa rek nga mën a waat ne nangu na ndax lan booy julli yow dong doomu aadama matul man ngay dem ba saa ngay xalaat lekk wala naan wala xaalis wala lu rafet ci àdduna wala lu bakkane te jamono ja sa xel ca yàlla ba ngay xalaat loolu dañu lay wàññeel say tuyaaba bu dee jàkk wala jumaa lu mat fukki nit nekk fa wala ñaar fukki nit wala téeméeri nit bu ñu tollee jamono kaneen di xalaat lu dul yàlla am koy xalaat yàlla kii xalaat yàlla day yóbbaale ki dul xalaat yàlla te defe naa ne lu tolloog téeméeri nit wala ñeen fukki nit buñ dajee ci benn jàkka ñépp mënuñoo maaseendoo di xalaat xalaat bu génn yàlla nga xam ne kon buñ dajee ci jàkka nekk mbooloo mu takku boo amee kuy xalaat àdduna am kaneen kuy xalaat yàlla kooku di xalaat yàlla itam bu rëccilee dem ci àdduna kaneen wuutu ko ci xalaat yàlla ga dañuy wax ne buñ demoon ba ci jàkk ji wala jumaa ji téeméeri nit nekk fa ñetti nit di xalaat yàlla ñetti ña dañuy yóbbaale ñëpp wala kenn day yóbbaale ñëpp moo ne kooku joxu la lekk joxu la naan waaye ma lay jariñ jariñante yi moom mbokk yi daa bari lool ki lay ñaanal mi ngi lay jariñ ki jàngal mi ngi lay jariñ kiy waaraate nga koy déglu mi ngi lay jariñ waaye malheureusement ñun li ñu fonk mooy intérêt personnel immédiat muy njariñ loo xam ne njariñul jëmm la tamu doon njariñ lu teew a teew a teew ndax dañoo yàkkamti téeyuñ nee naa leen nit ku ñuul comme ni ko tubaab di tooñee ñun nag dañoo jàpp ne lu baax tubaab a ko yelloo te moo ne yàlla ko am xel rek la wax waxul ku am der bu ñuul wala der bu weex waaye tubaab yi léeg-léeg dañoo gën a farlu ñun itam ñu ñu gëm ci suñuy mentalité ne tubaab daal moo ñu gën a war a intelligent wala moo ñu gën a war a civilisé wala yooyu rek te loolu baaxul moo tax dañ ñuy tooñ naan nit ku ñuul dafa yàkkamti te li lay wan ku yàkkamti la mooy boo ko joxoon tàngal ne ko maccal du ko macc ba mu jeex bala moo jeex rek mu yàkkamtee anticiper guu bi daal di koy yëy daal di koy yëy dañoo yàkkamti itam ba koo ci waxoon ne ko waaw kaay ma jox la cinq mille tey tey wala nga bàyyi ba weer wi dee ma jox la cent mille francs moom cinq mille yi teew lay gën a taamu moom lay gën a préféré ndax tabaarakallaahu ñàkk patience bi daal kon mbokk yi nañu bàyyi xel ne aa xuloo ndam nekku ci yokkute nekku ci de déedéet meroo ndam nekku ci e, tëkkoonte ndam nekku ci déedéet xanaa dañoo fàttali yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nee woon na laa yaxillu lil muslimi an yahjura axaahu fawqa thalathi layaalin يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام waaw nee na daganul sax ci ab jullit daganul mooy araam na araam na cib jullit muy mere mbokkum jullitam lu weesu ñetti fan waaw kon meroo duñ ne munta ñàkk léeg-léeg moo am xëy na ndax doomu aadama dafa matadi waaye boo doon mere nit sax na fekk nga bere ko ci lu jëm ci yàlla ak mooy yàlla nga tere ko ko tere ko mu të dëgër bopp nga mere ko te mer ba bu mu weesu ñetti fan jullit ak moroom ma kat waruñoo meroo une semaine wala weer wala ay at waaw meroo moo man moo ci boppam bu mënee ñàkk moo gën waaye bu mënta ñàkk na doon benn fan wala ñaar maximum ñetti fan trois jours waaye lu weesu ñetti fan ku romb sa moroom rek xool géej ki xool gauche kay xool droite nee na su boobaa day ñoom ñaar ñëpp ñu ngi def lu xaraam ki ci ëpp wu demin nag ki ci gënu demin mooy kiy njëkk a jël initiative nuyu moroom ja ñaari nit moom buñ xuloo buñ bëggee xuloo ba jeex nuyoo moo koy jeexal waaw comme da ngeen doon tase kay li doon wane ne xuloo ngeen mooy kii day xool gauche kee xool droite Masamba xool gauche sàmba xool droite léegi nag nañu xool ba xam Masamba moo gën a bëgg àjjana wala Mademba moo gën a bëgg àjjana ku ci njëkk a nuyu sa moroom rek yaa gën a bëgg àjjana de waaw te yow la yàlla di gën a fay yiw moo tax nañu boobaa nag faaw ñu teg fale ak rëy mbul nag bu fekkee dangaa xuloog nit moom ba ba ku ne ñéeg ba ne yow kay xalaay la bu ma la tuddatee rek santatuma sama santu baay wala bu ma bu ma la tuddatee rek yow lu diw jurumaa ci gën a yées walla bu ma la tuddalee tuddatee kay wala ma wala ma ñëw sa kër lu askanu diw raxasoo lu askanu sàngam raxasoo yàlla naa ko naan xam nga yëpp dañ koy wax ndeysaan boo defee nag su fekkee waxan yu ñàng yooyu waxante nañ ko nag ma sàmba wax na ko ma demba ma demba wax ko ma sàmba ah pour ma sàmba njëkk nuyu ma demba nag du yomb ndax day ragal danaan ah waaw ma sàmba moom ma sàmba bu naree nuyu ma demba danaan waaw ma demba mi moom bu ma ko nuyoo mbaa du ma wax ne ma yow amoo am nga jom gor de du lekk du wàccu di ko di ko di ko di ko naanaat du wàccu di ko lekkaat yooyu ngay bañ a dégg gor de du wàccu di ko lekkaat yow li nga ma fi wax yëpp yaa am jom waaw yow de boo amee boo ñàkkee jom man moom ma jom waaw yooyu ngay ragal mais jéemal rek jéemal yàlla mën na cee def tawfiq fekk meram giif na ndax jamono ji nit ki meree li muy wax du moom seytaane ku koy wax loo rek waaye bu meer ba amee ñetti fan wala lu ko romb rek boo ko nuyoo mën naa am lam jàppoon yépp bàyyi na ko dina la fay bu la fayu di itam yow am nga tuyaaba ja rek am nga tuyaaba te itam su boobaa su su meroo ba continuer yow doo ci am bàkkaar ndax jéem ngaa def lu koy dakkal xanaa danga ci amul ndam rek loolu moo am solo waaw am na waay ju ma ko waxoon am na ndaw sax su ma ko waxoon ne ma diw de sama xarit la waaye dañoo meroo te dama déggoon nga ne ay jullit suñu meroo lu weesu ñetti fan lu ñu ñaan yàlla du ko nangu lu ñuy julli itam yàlla du ko nangu luñ ñaan yàlla du leen ko may luñ julli yàlla du ko nangu tamaak diw de suñu xuloo bi suñ meroo mi weesu na ñetti fan ay weer a ngi nii kon nan laay def ma ne ko yow daal fexeel ba saa yoo ko njëkkatee romb nanga ko nuyu pertement nag nekku ci bu fekkee nuyu nga ko mu fay la nga xam ne pare na pour àndaat ak yow ci jàmm boo defee nga am tuyaaba ji am yitam juboo gi bu la fayut nag fekk ma ngay topp ak rëyam topp xolam su boobaa pertement nekku ci ndax léegi yow am nga tuyaaba ji te bu meroo bi continuer itam yow du la lorati du tee loo ñaanati yàlla nangu euh, loo julleeti itam yàlla nangu ko loo ñaanati yàlla may la loo julleeti yàlla na yàlla nangu ndax léegi li tax meroo bi continuer ajootul ci yow kat waaw kon mbokk yi juboolee ngoog daa mi teggin nag daa am koy defee loo xam ne faw ki bëgg a juboole faaw mu xam ci yan technique yan méthode lay jaare pour mu mën a am résultat bu bu baax loolu jar bàyyi xel la faw mu ànd ak teey faaw itam mu xam waxin comme li yàlla wax ne ud'u ila sabili rabbika bil xikmati wal mawizati al xasana waaw faaw nga xam waxin faaw nga jël ay uslub ay asaalib yoo xam ne asaalib Euh, rafiqa la layyina wax ko wax ju ànd ak respect ju ànd ak yërmande waaw ndax kat yàlla li ñuy wax dañ ne inna allaha yuti ala rifqi maa laa yuti ala waaw moom daal ak teey lum la mayul jaay doole du la ko may kon nit du amee résultat bu baax ci juboole ci violence ci xadar xadar kenn du ko demee su fekkee da ngaa bëgg a jubóole na nga rek waaw euh, kiy jubóole itam faaw mu muñ faaw itam tànki jubóole yi muy dox ngir yàlla lal ko waaye bu ci lal daraja wala bëgg di ci ndamu naan diw ak diw maa wala yu mel noonu yàlla nee na innama yuwaffa sabiruuna ajrahum bi gayri xisaab nee na muñkat yi leen fay dinaa leen fay tuyaabay muñ te duma leen xisaab duma leen comptabiliser régler bu metti mbokk yi booy jubóole itam faawu nga maandu li yàlla ne fa aslixu baynahuma bil adli wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin nee na booy jubóole na nga ànd ak maandu waaw na maandu ndax yàlla ku bëgg maandu la waaye booy juboolee nga jëfee noo xam ne dañ ciy yéege ne ma sàmba nga faral wala ma demba wala kuréel sàngam nga faral kuréel sàngam nag nga xaw a suufeel su boobaa itam maandu lalu ko kon loolu lu jar a bàyyi xel la booy juboole itam faaw yitam nga am ci yaakaar ju rafet ne lii kat dinaa ci am résultat bu baax waaye di juboole naan ah naa dem was lu jàq rek waaye diw ak diw di xam ngeen ne kenn mënut a tax ñu àndati wala kuréel sàngam ak kuréel sàngam kenn mënut a tax ñu àndati loolu itam gënut nag waaw yaakaar fu mu amul rek dara nekku fa waaw beneen bi itam mooy ku nekk ci dëgg yitam na nga ko encouragé ca dëgg googu na nga ko ñaax ca dëgg googu ku nekk ci dëgg na nga ko apprécier ca dëgg googee ñaax ko ci soññ ko ci waaye itam gën ko ci dëgëral waaye ki wàcc yoonu dëgg yitam na nga ko wax ci kàddu gu teey xamal ko ne ko ah yow kat wax dëgg yàlla juum nga lii kat bum la dalate xam naa yow itam jubluwoo ci lu bon sax waaye matadik doomu aadama wala dalaa rëcc rek waaye nga di ko moytu ndax yàlla moo ne faman afa wa aslaha fa ajruhu ala allah képp kuy jéggale yàlla dina la fay payug boppam képp kuy yéwénal diggante yi naroon a yàq yàqu yàlla dina ko fayal boppam daane ko kon nag yow bul topp sa xol bul topp sa mer jéggalal kii ndax xëy na daa juum rek doomu aadama mënul dëkk ci mat kullu bani aadama xattaa'uun wa xayrul xattaa'iina attawaabuun doomu aadama booy wut ci moom ak mat rek kon doo ànd ak kenn waaw koy àndal rek daa am lu lay neex ci moom am lu nëx ci moom la lay neex ci moom rek moom ngay jël rek mu ñu ko la nax ca moom la waajane woon man laka bil muhadabi nadbi alladi laa yajidu al aybu ilayhi muxtata waaw su fekkee dangay wut koo xam ne zéro faute nga soog a am xarit kon nee na da yàgg wër de waaye xarit du lay yomb waaw kon nag nit daal lala neex ca moom nga muñe ko la la naqadi ca moom rek lu jar a bàyyi xel la waaw nit day am lu ñuy muuñ ci moom am lu ñuy muñ ci moom defe naa muuñ mooy nga afficher sourire nga kontaan signe de contentement la waaye muñ nag mooy lu la metti nga di ko supporter waaw moo tax nit day am lu ñuy muuñ ci moom am lu ñuy muñ ci moom rek waaw bu defee noonu rek lay demee woo defee nañu defar diggante yi moo xam diggante ñaari way dencante yi couple bu nar a yàqu ñu defaraat rek diggante ñu bokk ndey baay bu naree yàqu nga jël sa bâton de pèlerin rek defar diggante bi waaw diggante askan ak askan bu naree yàqu itam noonu la rek dëkk sàngam ak dëkk sàngam de ñu ngay bëgg xeex ñu ngay bëgg a jëlante jaasi bu leen seetaan mukk jaasi yee jóg waaw bu leen seetaan mukk ñuy dogoo nañu fexe rek ba ñëwaat diggante yi waaw kuréel sàngam ak kuréel sàngam en tout cas daal individu yeeg groupe yeeg tabaarakallaahu ku nar a sa moroom nañ fexe ba loola bu mu am boo defee buñ defee lool rek texe ndax yàlla def ne fattaqullaaha wa aslixu daata baynikum wa atiicu llaaha wa rasulahu in kuntum muminin nee na nañu ragal yàlla tey ñaw diggante yi rek nag bu ñu seetaan diggante yi yàqu dañu ñu topp yàlla topp yonente yi topp yàlla topp yonente bi su fekkee ngëm gi ñuy woote dëgg la ci ñun mbokk yi euh, yonent bi sallallahu alayhi joxe na ndénkaane lu ama am solo conseil yu am solo orientation yu am am solo ci wàllu defar diggante yi loolu itam nañ ko gën a bàyyi xel daf ne ala adulluka ala tijaara booba ma ngay wax ak abu ayub abu ayub la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxal ne ko ala adulluka ala tijaara waaw qultu balaa yaa rasulallah ndax abu ayub moo nettali xadis bi mu ne ko moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam day wax ak abu ayub ne ko ala adulluka ala tijara abu ayub ne qultu balaa ya rasulallah qaal tasca fi l islaaxi bayna annaasi ida tafaasaduu wa tuqaaribu baynahum ida tabaacaduu ndeysaan yonent bi sallallahu alayhi dafa wax abu ayub al ansor yi ne kaay ma wax la benn commerce boo xam ne amul pertement moom bénéfice rek a ci am njaay moo xam ne doo ci perte danga ciy yokk abu ayub nekko ko laay la gaawee ma njaay moom rek laa soxla de commerce boobu business boo xam ne da nga ciy bénéficier wu mais doo ci am benn pertement ban la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko business la boo xam ne nag doo ko séq ak nit yàlla nga koy séqal sa marchandise yàlla nga koy exposé wan ko ko faaw mu jënd ko mu ne ko boobu ban marchandise la mu ne ko mooy marchandise yu jubóole nit ñi rek dox ci diggante yi nar a yàqu ba du yàqu yi yàqu ba pare nga ciy dox pour mu defaru soo koy def rek incha allahu rabbi yàlla dina la fay waaw boo ci amee résultat am nga ñaari ndam am nga ñaari xéewal xéewalu pay gi la yàlla pay fay ak xéewalu nag diggante ya yàq woon ña ña neexoo wutoon dem ba si yàgg ñu neexoowaat ña dogoo woon dem ba si yàgg ñu àndaat kon mbokk yi mi ngi noonu lu jar a bàyyi xel la dama daan wax ne kër yi bokk na ci li daan tax sax diggante yi daan ñoŋ kër yi daan neex mooy kër yi da daan am nday am baay am nijaay am bàjjan am yaay ju ndaw muy tante yi les tantes paternelles les tantes maternelles am maam ñaar ñu nar a wala ñuy wax lu jëm ci xuloo rek ñu woo leen ne leen ah kàddu googu ma dégg de bu mu jëmati kaw diw dey jàppal na diw mii bu naawee nga naaw diw dey yaag diw yéen bokk meen yéen bokk gaño kon bu leen waxanteeti lii diw ak diw ah fan yi yépp yéen a ngi toog kenn du tudd sa moroom loolu day ëpp naa def du seen ndam du ndamu askan wi loolu day rafetul bu ñu ko ab jàmbur déggalee itam dañu ciy xeeb joxante leen loxo ñu joxante waat loxo ku nekk ci dëgg ñu wax la ko ku nekkul ci dëgg ñu wax la ko fexe ba defar diggante yi waaye yooyu itam mooy tumuranke ki suñu société bi ndax individualisme bi waaye dañu delluwaat ci njàngaleem alquran njàngaleem diine rek lu problème jafe-jafe islaam amal na ko solution religion yi amal nañ ko solution yàlla subhaanahu wa taala amal na ko solution yonente bi sallallahu alayhi wa ak yeneen yonente yi tabaarakallahu boo delloo ci seen jàngale am solution kon mbokk yi ñu ngi leen di tàggoo fii di ñaanal ñëpp jaamu ko sàkku ci ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu